et de ce point de vue en dehors du fait que ne sax ñun suñuy collègues lañu ñi ngi naqarlu nekkin bi ñuy nekk ci situation yooyu noonu mm-hmm. ce sont des gens qui sont utiles à l'administration tey jii nii boo demee le travail que fait Bassirou Diomaye Faye au niveau de la direction de la législation liggéey la bu ama am solo parce que lui il fait partie des gens qui rendent les arbitrages mm-hmm. ñi ñi miin procédure fiscale xam nañu njëriñal njëriñal njëriñal arbitrage. donc tey jii nii ma la comprendre son emprisonnement euh, benn perte la ci administration sénégalaise. absolument c'est une perte boo xamante ni tey jii nii la mu doon def. Bassirou mm-hmm, et pour vous dire ah. Euh, que moom ba bis bi ñu koy jël si mi ngi tëju di rendre des arbitrages parce que moom dafa doon essayer respecter sax ses obligations yi nga xamante ni dina ko woon a permettre mu mu mu mën a mu mën a satisfaire un peu moom li nga xamante ni moom la ñu koy sas ah,